bilahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim barkat seexul xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa fédération bu Touba Espagne maa ngi leen di nuyu di ci jiital kilifa yépp di jottali ay sant ak ay ñaan yu bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa Seex Ahmadul Muntaxaa ci liggéey bu mag bi nga xam ne moom la joxoon waa Touba Espagne ak bépp jullit bu ci bëgg a def saw ñaq muy lu jëm ci wàllu moket yi nga moo nekk ci jumaa ji te yàlla dogal nañu doxoon ci ay jéego yu ama am solo ba bi mbas mi ñëwee mu meloon ne lu xaw a taxaw waaye gannaaw yàlla dogal ne lépp jeex ñu continué liggéey bi di soññ suñu bopp di soññ jullit ñëpp yàlla dogal ne démb ci samedi ji ñu demoon ca Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Mountakha doon ko gaaral liggéey bi fi ci toll ak fi ci jaar fépp mu am ci xol bu sedd gu yi nag gën a amaat yaakaar bu baax ba wax na ne li taxoon mu jox ñu ko de mooy lii rek amoon ci ñun yaakaar te mu yaakaaroon gis na ko ci ñun ndax leeral naa ko euh, fi mu tàmbulee ba ci le 10 mars bi ndaje woon Madrid la fa dajee lépp leeral naa ko ko xolam seddu ci guy mu gën ñoo ñaanal loolu nag moo tax ñu jaar si woon fii ci Sénégal ngir leeral ko liggéey bi waaye fas yéene dem Turquie tamit incha allah wu defee bi ngir ñu mën a àggale liggéey bi balaa màggal gee kon képp koo xam ne lan toogoon ci aw sas mataloon nga ko boo mënee dolli tamit. ñoo ngi tàllal loxo képp koo xam ne tamit nag déggoon nga ko te laata nga ci doon def mbas mi ñëw na heure boo ci mënee joxe sa àddee rek dëkk ba nga dëkk fexe la jokkook jëwriñ yi ngeen joxe seen àddee ndax fi mu toll nii ñoo ngi ci ba incha allahu rabbi daan dem altine ak jàmm turki defe contrat bi incha allahu rabbi mu Muntaxa nag xolam sedd na ci guy xelam ni gën naa dal yëkkati na ay ñaan yi tamit jëmee ko ci waa fédération bu Espagne bi ak xol bu sedd guy xam naa yàlla daa dogal démb euh, ñu ñaar rek ñoo nekkoon mënumaa wax ak moom di ko filmo waaye bi mu demee bay ñaan na euh, am na lu ma ci jël xam naa bu sëñ bi noppee dana ko dugal ñëpp barkeeloo ci ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal loxo nañ képp koo xamante si ak ñu dégg rek te yàlla dogal na sa ëddee duggagul woon ci mukket yi nan bàyyi xel ne ñoo ngi ci mujj gi ndax ñoo ngi dem di ko euh, defe contrat bi pour fas yéene balaa màgg la ñu jébbal ko sëriñ bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Espagne gépp nag ci turu fédération bi yëpp yal na yàlla defal ñu ay xéewal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim barki borom tubaa wal tudxilil musliha fi yaddi wa fi daari wa sabitanhu bilhaadi wa fii bokki jullit di bokki taalibe yi seen bokkum taalibe Assane Diop muxaddamaatul xidma mooy siyaare mbooleem njabootu cheikhul xadim bi yëpp di jiital siyaare bi sëriñ tubaa cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér di siyaare nag euh, sunu jëwriñ ji nga xam moo jiite liggéey Cheikhul Khadim bi te nekk fii ci Touba Espagne muy Serigne Mbacke Ndiaye euh, di siyaare El Hadj Abdou Ndiaye mi nga xam moo jiite jëwriñu fédération Îles de Canarias tey nag buñ gisee kàddu yi ak jataay bi mi ngi jëm ci liggéey bi nga xam ne mooy tapp yi nga xam ne mooy ndigal liñ jotoon ci ko fi ci Serigne moo Cheikh mun Mountakha muy euh, yeesal tapp yi nga xam ne mooy tappi jumaa ji Euh, ñu di ci jot ndigal nag ci suñu président fédération ngir na liggéey la boo xam ne keroog bi ñu ci jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati ci ay kàddu euh, woo ci taalibay Cheikhul Khadim yëpp boobee kenn ku ne gis na ne liggéey bi ñëpp def nañ ci yitte ba ëppoon ca liggéey ba keroog kenn ku ci ne tàmbali woon na ñu ne woon képp ku nekk Espagne euh, ñu ngi lay woo tàllaloon la loxo ci cent cinquante euros. Euh, boobu itam ci lañ woon képp koo xam danga bokk ci suñ wetu bopp ci wetu membre muxaddamaatul xidma ñu xamal ne na liggéey boobu liggéeye ngoog boo xam ne kat kuy dabu ngërëmal sëñ Tuubaa boo ca tàbbee danga ko danga ko ca am kon nag noo ngi fàttali suñu bopp di fàttali mboolem taalibay Seexul Xadim yi xam ne ñoo ngi ciy tàllalaat loxo taalibe yépp la ëppoon ci liggéey ba nag sori nañ ci ndax am na tàmbali euh, te it dem nañ ba gis lañ bëgg ba am ci contrat bañ ca war a am nga xam ne diir bu gàtt incha allah fas nañ yéene liggéey bi mën a dem Touba kon nag ñoo ngi fàttali képp koo xam ne woo woon nañ la ci liggéey bi rek fàttaliwaat nañ la ndigal li ñoo ngi lay xaar képp koo xam ne nag it euh, ndigal li agsi woon na ci yow nga dem ci daayira Seexul Xadim bi la gën a jege daayira bi la gën a jege soo déggee ndigal tamit te am loo ci bëgg a defit soo dégganteek président fédération wala ku ñuy wax sëñ Ibrahima baaw secrétaire général fédération daayira Seexul Xadim incha allah sa sa sa jëf dana ca dem yàlla nañ ci dajeeg barke waqi di awaay jël si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li si na saaraxoo li xidmati fa la umu dayaar wasal jannati seen mbokkum taalibi asan Diop xidma jërëjëf Mbacke ah ci rek liñ lépp jàpp rek jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke danga ko dégg incha allah danga ko dégg jiite liggéey bi ci Espagne moo toog noonu ak sëñ bi. doon ko leeralal mbir meeg contrat yeeg tur ki ji war a dem ngir tàpp yi xam naa ngeen xamee ko noonu rek incha allah.